mu xamal loolu lu bari tamit ci réew mi te suñu métier ko mën parce que des lu bari bari lu war a mën a def mhm. lu ñu war a mën a wax xam nga yéen a ngi posé tout de suite un débat qui est intéressant justement dañ lay bàyyi nga réagir ci actualité boobu très rapidement avant ñuy jàll ci beneen actualité. tout à fait que je pense que Macky Sall a averti tout le monde. Mhm. vous vous rappelez ne moom ki mu fàtt ba ko secteur privé bi interpellé sur. vraiment aujourd'hui les interviewés ne pas dans l'économie du Sénégal et tout ça la doon wax na oui il faut encourager qui viennent investir au Sénégal parce qu'ici il y a la maladie <laughs> les gens sont pauvres ils prennent des pour investir quand il a dit ça j'ai tiqué ma le président d'abord li la war en tant que président mooy nga defar ay capitaine d'industrie <laughs> gis nga Mohamed Ciss buy ñëw avion yëpp ay chef d'entreprise la koy yem balaa mu fi toog ñetti fan ak ñeenti fan nekk ci lu ko neex day jubali pale ñu toog teg table bi ñuy signé ay accord loolu ko fiy indi loolu ful ak fayda. gisoon nañ ko ci Mohamed VI. France suy ñëw Turquie suy ñëw vingt cinq trente cinq contrat la signé mais ni ko Oumar Faye waxee. Mm. Erdogan nga foog ne mën naa ñëw fii di lambar lambari Sénégal rek te amu fa intérêt ce qui est plus intéressant mhm. et que ñu bëri dañ ci fàtte walla xam nga ba nu njëkkatee mbiru feeru falame bi dañoo jëmoon ci ay élections présidentielles. Mhm. vous vous rappelez très bien Atepa defoon ci sorti ñu yëkkatiwaat ko juste après présidentielle yi son ko def ci sorti ba le directeur de l'APIX nekk invité RTS ñu ne xam naa nan bàyyi ba pënd bi wër ba mu daal moom mu jóg ñëw parce que xam na la laa gëm mhm. social yi avant ñuy jëm élection am na lu mu jot a dugal ci xaalis ah loolu laa gëm man moo tax par la force dañ ko doon jox feeru Falémé bi maintenant comme càng na président bi ñëw décanté situation bi de défendre ses intérêts. Eh, mais loolu mënoo ko reprocher un président de la république bu bëgg réew tu ne peux pas reprocher à Erdogan de mais ful la jëf ordre Erdogan am ak fayda ji ba ñëw di régler problème boobu dafa waroon fekk fii président boom ful la am fayda jàkkaarloo moom na ko du demee nii nii ak nii la war a demee mais est loolu am nañ ko yaa ngi wax léegi ay autopont yi ñuy tabax mais figurez-vous ay entreprise française ñoo ko ñoo ko gagné ba pare sous-traité ko ay chinois Sénégal ñun mun ñoo tabax ñu ay entreprise française gagne sous-traite avec des entreprises chinoises au Sénégal CSA e mënul tabax je fais pas de la pub CDE Muslim mënul tabax Baratal mënul tabax dañuy jóge fii dem ba Angola di gagné ay marché ah xam nga wax ji moo dul neex boo koy wax ñu foog ne ci compte mais en réalité soo xoolee tey jii suñ économie secteur privé moo ci gën a dee mosoo gis rencontre bu am entre l'État <coughs> et le secteur privé te déggoo ñu joytu amul te même secteur privé boobu dette intérieure baa ngi leen di bëgg a rey mm-hmm. chaque jour nga dégg Omar Faye mi wax ci je pense que il est temps que nit ñi suñu wax patriotisme foo ko waxee ñu ne wooy personnel monopole du patriotisme non c'est des actes que tu poses mm-hmm. yu leer ñu xam ne yow sa patriotisme c'est clair mais bu nekkee ne yow ba nga fi ñëwee toog la grande surface française yëpp am fit ubbi mm-hmm. boo demee France muy Carrefour du Auchan sañu ñoo nekk en plein milieu de centre ville dañ leen exiger ñu génn ville bi pour xam loolu pour éviter lan tuer le petit commerce te da ngay génn fi dajeeg agent Carrefour boo demee France du nekk ci digg ville bi uh-huh. déedéet dañ koy génn ville bi de très loin boo ku bëgg a dem foofu da dawal sa oto dem ba fële gis fa lépp papatamus yeeg lépp nga dugg ak sa famille sa comment tout mais fii ci digg ville bi parce que Auchan xool na ba xam comment on fonctionne mu ñëw tabax fu ne rey le petit commerce donc boo jigee ci loolu yaa ngi ci terre bi chaque jour ñu ne la six cent milliards sept cent milliards mille milliards mm-hmm. nga jóge ci loolu dem lampadaire yi ñuy joxe nii société française donc finalement da ngay ba si yàgg nga ne bon véritablement mm. lan mm-hmm. la la defal pour sunu entreprise yi gis seen bopp ci économie sénégalaise finalement te pose question questions et yoo xam ne légitime moom mënu la ko tontu dafa mel ni daal mhm. man complexe tubaab bi léegi dañ ko am rax ci dolli dafa am beneen secret boo leen xamul ci Turquie bi sa xamul na lépp luy matériel de répression yu Macky Sall jëndoon pour élection présidentielle yi sénégalais bu fi yëngatu ñu ñu làpp la foofu la jógee ñooñu ko jaay. d'accord. <laughs> lépp lu fi matériel de répression à l'heure actuelle. Mhm. parce que xam nga Erdogan loolu la mhm. imagine-toi Erdogan on dé il décrète un coup d'état chez lui le lendemain 3000 personnes sont arrêtées <laughs> c'est extraordinaire. Mhm. <laughs> il y a pas d'enquête. donc a priori moom xam nga le 3000 coup d'état bi. matériel de répression gis nga. genre oto yu ndaw yooyu nga xam ne ñu ne day day photo day caméra dafa mën a lancer en même temps sans grenade Turquie ñoo ko jaay lépp luy matériel de répression à l'heure actuelle Turquie la jógee d'accord donc mm -hmm. très bien ça devient c'est dommage pour le pays. c'est dommage pour le pays alors ci noonu la ñuy jàllee suñu euh, beneen actualité c'est aussi dommage pour le pays euh, ñu gis ne que quand même euh, taux de violence bi mu ngi augmenter de jour en jour du ñu xëy sans pour autant dégg nit faat na bakkan nit rey na nit ci ay conditions yoo xamante ne vraiment c'est vraiment atroce ci noonu la police ak gendarmerie mené woon ci biir semaine bi une opération conjointe Dakar Kaolack ak Touba une opération qui selon le ministre de l'intérieur tax na ñu jàpp ci ci euh, plusieurs personnes donc dañuy ànd ak kii di euh, Aly Ngouille Ndiaye voir un peu euh, sa réaction face à cela da ngeen war a boole seen doole def opération de sécurisation aussi bien à Dakar dans un premier temps Dakar Touba et Kaolack et même si possible le faire simultanément pour que Euh, Samba Boy yi nga xam ni tey ñi ngi commencé di terroriser nit ñi euh, euh, maanaam delloo tiitaange ci ñoom parce que loolu surtout parce que am ngeen outils yi am ngeen personnel bi am ngeen moyens yi te am ngeen aussi jàppale bi leen état bi jàppale pour lool lii ma gis dal na suma xel te gëm nañ ne bu ngeen ci bu ngeen ci taxawee léegi mbir mi dana dina soppi donc loolu nag bëgg naa te aussi mu bañ a na opération bu ponctuelle parce que tey. c'est vrai que mi ngi amélioré parce que tey foo ci dugg secteur fekk fa police wala fekk fa gendarmerie et là les populations l'apprécient il faut que nit ñi di leen gis parce que dalal seen xel donc dalal seen xel nag ci contexte bi surtout que guddi rawatina guddi c'est vrai que am na beaucoup de choses yoo xam ne yi moo koy moo koy waral mais gëm naa ne bu ngeen ci taxawee donc lépp danañ ci mën a dina mën a sotti